Euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñu safoo Dakar Buzz di ñu suivre saa su di leen jaajafal tamit bu baax a baax euh, on est le 27 euh, novembre bientôt rek décembre sedd bi tàmbali na annoncé wu rawatina fii si dakaar ñu fas yéene rek gis rek femme mariée ñu wax ñu rek naka la ñuy waajalee seddaay bi naka rek lañ si nar a fëlaale seen borom kër yi du ma def rek lu dul dugg xool rek quelques femmes mariées dëkk leen sama micro ñu wax rek naka la ñuy paree seddaay bi ngi fëlaale seen borom kër Malick ñu dugg si biir jéem a pelloog maa ngi lay fay lu bari man maa ngi tudd Mariane Diop madame Diallo. Mhm. depuis quand nga marié ak yàgg na ça va faire 12 ans bientôt. Mhm. ñu gis ne sedd bi mu ngi dugg tey yéen marié yi daa mel ni période sedd ngeen gën a yàkkamti lu waral loolu. waaw marié yi moom sedd ak tàngaay bi yëpp a comme ni ko Youssou Ndour waaye rek sedd beeg tàngaay bi bu la ci gën rek yaay xam waaye sedd bi tam dañuy def ba mu baax. waaw. naka ngeen di waajalee sedd bi toppatoo seen bërëm kër réchauffé leen ak sedd bi naka ngeen koy waajale ak nan ngeen koy defee. waaw waajal ko ci parfum yu baax yi xam nga seddaay bi moom nu mu gën a nuggee rek gën a baax lal yi nu mu gën a taalee gën a baax waaw maanaam fer yi tamit noo ci gën a mën a widdee rek mu gën a baax ça dépend rek ku nekk ak sa goût ak ni nga ko taamoo. si naka ngeen di nuggalee néeg yi ba réchauffé seen borom kër. cuuraay yu yi yu baax yi. dra yu baax yi rideau yu baax yi ak set balaa tout waaw def ba mu baax rek xam nga am na yoo xam ne kenn mënu koo faram fàcce nag soxna si <laughs> junj doy na borom xel euh, nga euh, yokk gars yi xalaat rek si naka lañuy ñuy cuuraay bi waaw cuuraay moom xam nga ñun ay doomu ndar lañu taamu nañ ci doom bu weex tàll lay sa ànd ba mu set doom bu nooy nga jël sa cuuraay fekk euh, doom bu tàng rek ñun soxlawuñ ci xal soxlawuñ ci dara doom bu tàng rek jël sa xeetu cuuraay moom xam nga mooy loolu yenn saa yi da ngay bañ a tudd sax jël sa bu baax rek ne ko ci pay comme defar ba mu tëse ba sax taamu naa ko ci bëri na baara baara may ñu baara may ñu ci cuuraay yu baax yi xam nga tur dañoo bari waaw te am na yoo xam ne xam nga cité ko euh, tegginuwul daal loolu la te comme ñëppay seetaan ñëppay déglu looloo waral waaye tur yi bëri nañu. 30 minutes de silence bi. 30 minutes de silence moom waaw ñi ngi fi. nokkal tëdd nee na nokkal tëdd. yooyu tegginuwul bàyyi ma ma tëb yooyu yooyu yëpp dañ koy bañ. waaw marié yi ñoo moomee fan ah. ku dul marié na wuti. maa ngi lay ziar. naka nga madame Kane. madame Kane depuis quand nga marié. Hmm, ça fait un mois. Ah, kon seet bu bees la sedd baa ngi ni dugg si na mu annoncé wu bien si sa côté comme que marié bu bees nga naka nga koy waajalee pour euh, toppatoo sa borom koy réchauffé ko bu baax a baax. ah def si ay xeetu baax baax rek toppatoo ko bu baax parce que góor yi moom loolu la ñu am genre. Euh, def ay xeetu baax baax loo ko mën a bégalee rek. nga jënd ko ay ñoom cuuraay fer tout sax léegi naka ngay utiliser cuuraay bi pour réchauffer ko ci chambre def sa ay xeetu baax baax yu baax rek mm, jën sa ay cuuraay yu neex te baxe ne euh, def sa ay boyal daal soit que am ñoo xam si ne amuñu seen xaal ay lii la ñu am mm, feex à courant lii ànd à courant genre yooyu noonu ñaar yëpp. dangay ngay jël def saxaar bi suul mais muy xeeñ moo gën saxaar bu bëri bi genre yooyu noonu mm, nga suul ko genre yooyu noonu. soxna si maa lay nuyu. man laa fi. naka nga laa tudd. Zeynab Diop. yaa laa waaw. Ah, yaa nga mm, two years ñaari at. deux ans waa léegi depuis boobu ba tey yaa ngi deux ans yaa ngi sëy eh, sedd bi dugg si na naka nga koy waajalee pour euh, toppatoo sa borom kër réchauffé ko bu baax a maa ngi waajal suma jëkkër suma jëkkër nekkul fi na waaw mu ngi mu ngi ñëw moo tax ma ñëw di ko soppinal uh-huh. def ci guraay bongo defaral suma nekk di defaral suma jëkkër yaa. naka nga ko nar a utiliser cuuraay yooyu pour réchauffé ko bu baax. <laughs> Ah, cuuraay bi de. dama koy def si ànd bi su ma dama koy def si ànd bi dem yóbbu ko su ma néegi fu may tëdda damay sul xaal kay waaw damay xaal damay sul xaal ma xaal ba ma jël cuuraay bi ma def ko si si xaw ma si kuddu ma def ko afta sedd xaw ma xeeñ bi mu ngay génna génna waaw te di ko suma jëkkër <laughs> maa ngi lay fay Idrissa Gueye. ñuy def reportage euh, si femmes mariées yi naka la ñuy préparer pour toppatoo seen jëkkër réchauffer leen ci période seddaay bi nga xam ne dugg si na nga am ci xam-xam loo ci xam lan nga leen di wax na naka lañ ko mën a defee. Euh, bon seddaay bi nii moo xam na ku ne xam na ni muy demee des fois gars yi dañuy wàcc ak courbat courbature yeeg yooyu noonu yëpp bu ko defee da ngeen leen bala avant tout bu ñu egsee dañu fekk ndox bi tàng ba pare quoi parce que xam nga mooy loolu noonu dañu xaw a ragal ndox wala genre truc affaire yu mel noonu ak fatigue bi noonu sûrement courbature bi ndox mu tàng da ciy baax dañu tàngal ndox bi bu pare bu ñu ñëwee aussi xam nga ay affaire de cuuraay ak yooyu noonu saxaar si nañuy éviter saxaar si di bëri ci néeg bi nañ ko def muy gilli noonu nànk-nànk rek yaa a gën a xam xam ngeen yéen xale yi ngeen a a doy waar defee euh, bu loolu weesoo. Euh, ñam bi bu muy tàng bu baax parce que c'est pas bon pour la santé aussi mais na na na na assez na assez chaud buñ ko buñ ko liwee mu xaw ñoo réchauffé tuuti bu ko defee après ngeen daal leen ngeen daal leen di bokk ci ruq di leen câliner yooyu noonu da ciy baax quoi day day faj sedd bu baax ndax mbaaj moom day am ñaari nopp quoi <laughs> loolu laa yi. couverture couverture je suis plutôt couette que que Mbadji Mbadji dafa dafa xaw a diis ba ma ëpp je préfère couette et c'est plus doux en en plus man daal lool laa loolu laa gis quoi côté couverture waaw gis nga <laughs> fay solo ñoo ko bokk.